ak saako ciment. wóor jàll <laughs> kon chantier yaa ngi eh, ak ndox mi ndox mi ndox mi <laughs> facture ndox yi ñi def li yàlla leen su àq dal facture ndox yi yow gisoo facture ndox yi gis nga ay waay ma tiital yow yi ay laaj internet ndax gis na fa facture ndox yi ku ci war facture na ko photocopier yónnee nu ko ay bas ma ah bas Comlay Comlay nee na. moom jot na. nee na 2000 la doon fay fi mu toll nii mu ngi ci 30000. ah waaw am na ñuy fay ndox 200000 jëm kaw ci réew mi. aywa waay kon moment bii loolu depuis kañ la. seen eau gii bi yow tam Pape yow xanaa. xam naa fi ah, waaw si xam nga chaque deux mois. waaw waaw man bee ñoo koy. ay ah. dix mille quelque la. woyofal gi. nga yor sa facture normale. yow ku fay 2000 nga ne mujj fay ñaata 30 000. 30 000 oui. waaw man mi fayoon 10 000 ba repassé kon xanaa man. waaw xam naa da yéeg rek di nga laal ay 60 yooyu. 60 jëm ja góorgóorlu la facture am soog a génn góorgóorlu na YouTube bi <laughs> yokk. <laughs> ay waay sànq yi koy xaar la sakkal na ni ñu jàll 24 heures ñëw ci euh, kan 2 minutes pour lire l' essentiel bu sunu grand. Euh, euh, euh, ben Matar Diop mu ñëw ci quatre priorités majeures Diomaye Faye rassure et s'engage à abréger la souffrance des Sénégalais. mooy wax léegi dafa mel ni réaction. yaa ngi ñëw facture waaw waaw waaw Cissé j'ai reçu une facture de presque cent mille francs pragmatique nee na moom. cinquante quatre mille. 154 000 ci ndox 154 nañu wax ñaata lañ daan fay. Maguette Tall nee na moi j'ai payé 130 000. <laughs> ñaata lañ daan fay. Diop euh, Galas nee na 175 000. 175 000 jàppal ni mu ngi woon ci 50 000. wala ci 50 000 Mamoun Mamoun Diaw moom nee na 35 000 la doon fay. Hmm. maintenant il est bu ñu ko defee ni Mamoun moom. mooy tax ñu mën a xam nañu wax ñaata lañ daan fay. ak bi facture mujjee ñëw ñaata lañ fay. c'est ça mais à ce moment mën naa lii rek di jooy. ëpp na de 35 000 ba c'est trop incroyable wallaay c'est abusé eh, lii nañ ko génnee bu dee ni dañu am lii lii dafa jar sax teel a wàcc ñëpp tas ko ñëpp tas ko bas ko jot bas bas bas yëg ko <laughs> eh. eh ñu war a wàcc ci ci mbedd la kenn commencé nag di que koppar yi am na fu mu jëm waaw waay yow bas kay fi mu nii bas kay na ko ñëpp woo wax ko facture yëpp ne ko chantier bi njëkk yaa ngi wallaay lii jar naa wàcc sax Ahmed Rasoul nee na ñun Canada duñ fay ndox oui Canada il paie pas euh, d'eau. Ambari nee na moom 300000. oui 300000. Diédiou Assane nee na mois nee na léegi moom. 178 eh, lii duñ ko fay nee na avant 35000 la doon fay. léegi nee na bii pas 178000 la fay. mais yéen lii lii ana consommateur ici. scandale c'est un scandale. baax na ñu ngi ñëw ci lii. c'est c'est c'est un scandale ñu dem. dinañ ci ñëw alors bu ñu jógee ci 2000 euh, pour lire ensemble ñu ñëw ci. Mhm. Euh, waaw Wii Sport. enfin dugg nga sport. waaw enfin mais Wii Sport moom maa ngi sport ñoom ñuy ñëw tamit. waaw ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye. ah déggoo li mu ne jeter un excellent milieu de terrain. wax lii président xale nag. <laughs> mais mais Bassirou Diomaye Diakhar Faye li mu wax nii man publiquement dama koy défier. ah. publiquement. Mm-hmm. damay défier le nouveau président de la République. ah atia. su dee nee na moom li mu wax nii nee na loolu la. Mhm. man ma ne ko man Pape Ousmane Cissé. Mhm. j'étais un excellent milieu de terrain. Hmm. man j'étais un excellent milieu de terrain. Pape te li may wax nii li may wax nii ñi nga xamante ne ñoo dëkkee Mboro jàpp Tiwaawan ah te fekkee jamono jooju. Mhm. mun nañ ko confirmer. ma ne bu dee yaa ngi seetaan. Ngalla Kane ana am na. vidéo Baye Baye boo yoroon. ana Ngalla yow muy mbëkk bal teg dënn di xam nga kaay defal naa. ana Ngalla defal naa gis nga di jongle di teg bal. Mhm. dafa uuteeg mën a football. gisoo sama baay dañ ko mënoon football. Ah. am na jigéen am na jigéen ñoo xam ne boo leen joxoon bal ñu def oh. ci leen neex. Mm. loolu du renseigné de. da nga défier sama papa ji. dama ne dama défier publiquement pas Assane mais le le nouveau président de la République pare nekkoon nañ ko waaw nañ ko léegi dama lay wax dara damay. nañ ko organiser dañuy organiser ñaari match moom moom boo ko xoolee sax xam ni football la. waaw waaw moo tax boo xoolee doxin bi rek xam ni. nga xam ne kii la. xam nga nu ah, ñuy def ma bëgg ñu ñu. dañuy dañuy ñaari match. waaw benn bi day nekk Pastef. waaw. mu jàkkaarloog euh, APR benn bokk yaakaar mu nekk match de la wax yow foofu xaaral rek maa ngi lay <laughs> daj bu gënee ñaaw ma jël <laughs> di nga gis ku yóbbaale meram nag meru opposant am nag wax dëgg yàlla mais pas na bu mu ngi wax mag ci bu doy waar waaw eh, di nga gis ku yóbbaale meru opposant am moom laa wax ni meru opposant mbëkk kenn ah, rek problème ay tànk yi la war tukkee match ah yow réconciliation buñ stade xam buñ lànkee rek eh boobu la ñuy def suñu noppee ñu def match fexe ba sans limite fexe ba wal fexe ba match APR passif bu fa détenu bokk bu bu bu détenu fulbale ku ñu jàppoon nii génn wala daje waa APR. kon de Fadilou du du Jomaa yi du ah, football waaye mu sell yaakaar naa du football de. <laughs> détenu yi ngay wax. ku ci fut ku ci dajal. war na yegg war na yegg ministre de la justice. Eh. Madior. Ismaïla war na yegg Madior. mais te kaay ma wax la opposant yu bees yi xam nga dañuy naqari de rek. boo ah. commencé opposé rek. wala ku mel ne euh, Paasa ku mel ne ah. Maître El Hadj Diouf nga xam sport. ay ay problème ah, da na la. wuy ma dëgg wala rek daa mbóoj. non non. daa mbisi buddi di. di ko maître rek nga bu ah. di ngeen gis ah. de xam naa ni di nga gis Aliou Sall bu fekkee day bokk ci titulaire yi di nga gis xale bu daw ba ca yàgg rek poñe ko ne ko sama 400000 dootul nekkati match man nag pare damaa proposé rek bu ma kaw bu leen ma indil problème dama doon foo rek ay match bi dinañ ci waxtaan comme ça paasan moo koy ah. tëgg euh, waaw loolu dana neex arbitre déedéet man moom man moom après bu ñu laalee bal sax ma ne faute riib faute. déedéet yow yaa koy organiser. injustice laay dox ak. yow yaa koy organiser. ah pare doon arbitre ba. <laughs> ba pare mbiram wàcc mooy bii la leen di may xel eh? maam nii la leen di aju ne man fii xool mi ne ko maam mu ne penalty maa ko décidé jox leen détenu ñu dugal. <laughs> non pas yow neex non réconciliation mënut a. sori mais boo demee waa Ampère génn <laughs> moo àpp Antoine Diop <laughs> yéen du ngeen bokk. dégg internet yi yéen du ngeen bokk. ay dégg Antoine Diop bi c'est entre. waaw Moustapha Diakhaté xale bu ci jot. den den ko Pape Alé. Fapal. béykat Fapal. seetetet. ay baax na. bu waa président am na ku bi wàcc fu ñu football. waaw ngeen di. maanaam ci ay mbiram mën na ko fi dégg. moom est-ce que. xaaral bas. waa Wim Sport jërëjëf. si ngeen génn am na solo de ñëw ci. waaw ah, ku doon excellent eh, excellent milieu de terrain loolu moom bëgg naa koo gis. Uh-huh. le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Uh-huh. mu ne ancien joueur et président d'ASC à Ndiaye Ndiaye le cinquième président de la République du Sénégal est un féru de sport. <laughs> à une semaine de sa prise de fonction son prochain ministre des sports et sa politique sportive sont très attendus donc mooy ñi nga xamante ni ñuy xaar mu yaatal yooyu Cheikh Oumar Talla maa ngi laa nuyu bu baax doomu Pikine ji. Uh-huh. wii sport ginnaaw record record ñoo ne ci match amical Sénégal euh, euh Bénin à 19h30 mu ne dompte les pour le carton plein waaw loolu dinañ ko xaar pour xool fan lay mujj ginnaaw record ñu ñëw ci sunu làmb fa la teere làmb ji ñëw ci euh, li nga xamante ne moom mooy euh, Zos Bathie Seras Tidiane Faye Pape Mor Lo Lac Rose mu ne ces lutteurs au succès éphémère mooy ñi nga xam te ne daal dañoo ne saraax ci biir làmb ji. macha allah ni ñuy duggee noonu lañ ci génneerte. Mm-hmm. maanaam seen suñ ko mënee waxee noonu seen carrière dafa gàtt ci làmb ji. ak yow moom damay seetaan làmb. Ah? mais mami laa ñemewul. ah mami ah. eh, eh. eh! moom seetaan ni. booy pikin laa. kon <laughs> mami. damaa yaru rek mais booy pikin laa. d'accord mami ak lay dégg booy pikin. waaw jeex na mais na nii daal <laughs> bokk na ci ñi nga xam te ni daal ay mbër yu mag lañu woon waaye seen euh, succès moo bëriwut daal moo yàggut ci làmb ji kon fii lañ koy ndar keppe ah. ba suba ak mame ak jàmm incha allah suba moom mame ngeen ci àndu soobee jërëjëf jërëjëf euh, jërëjëf euh, ñu ngi lay jaajëfal ci revue bi bu baax